su ma neexoon léegi léegi léegi léegi su ma boo fi ñëwaatee weer ma toll ni gars yi mais bëgguma loolu man naa màgg sama doole nga may gis ma xeeb ñu jàppante ngay wax seen nit naan ay waay waaye dafa am doole de man gëm. man a Saloum 2 bi ñu dajee moom du moom parce que bi ma joxe combat wax ñu moom Saloum 2 Zoro lañ ma waxoon Zoro eh yaa ngi may dégg yow Zoro bu xam sa cosaan ba Pikine. Zoro xam sa cosaan. Zoro lañ ma proposé Zoro dem ba si biir xam nga samp nii la bu rafet. ñu proposé ba Boy Diop Boy Diop eh ak may dégg li ma. Boy Diop men bi bëri woon ak anti. Boy Diop sa xam-xam. sa xam moo bëri woon bëri woon ak anti. waaw anti daan ko. bu ñu waxaat ma Boy Diop Boy Diop demaat ba si biir samp niil bu rafet yaa ngi may dégg. yow nan nan nga tolloon nan nga mel ba nga ñooñu samp niil yow pour lan la. yow fan nga wékk loolu ba ñooñu dañoo samp niil est-ce ko. ñu ngi dégg man ragaluma da ragal laa la wax nga am ay nangam sangam dañoo ragal. barki maam seen ay eh, da ngeen a ma duma

ginnaaw yaa ko ñemee yow ba jël ko kañ fooy la rek yàlla parce que Saloum 2 nii mënu ma téye de Saloum 2 moom bokkul yow mbër ak mbërëntaan bokkul. mbër ak mbërëntaan bokkul la mooy seen différence. ah da nga mbër ni mbërëntaan. Saloum moom lan la. Saloum ah <laughs> garaawal bàyyi ma jërmandil ko rek parce que moom Baye Fall la quoi ko góor yàlla la dama ko dara Saloum maa ngi koy nuyu de passage sax parce moom ku baax la. waaw ku baax la parce que bi laa ma jeexee daje nañ si biti quoi mu ñëw nuyu ma ñu saafante noonu waxtaan xam nga mu jàll ma jàll parce que tamit xam nga loolu ko quoi da ngay gis mbër ñëw di ko kii mu ne ko waaye yow xam nga sànni ko loxo wala mais loolu garaawul parce que mënoo ko ko dóor ba victoire nga saafante nag moom rek soo paree nga dem xool leneen mu xool leneen que làmb noonu la làmb daan la ak daanu man bañu ma daanu de xam nga lu may bañ idée yaac yaac ak yaa fuus ba daanu parce que bëre leenu ñaambile kenn xamul fu muy damee mais xamali bon yàcc yaasi ak yaafus man du ma yaafusu kenn du ma buuru bara kenn mbëru mos jëlit boo may daan di nga bëri ba say mbokk jooy nga doog may daan. Petit Baye Fall nga def lu tolloog dix am si huit victoire deux défaites nga daan saalum man laaj la nga ne nga cité ñoo xam ne ñoom nga war a bëreel tey jii yaa ngi en direct si SBT Média say soppe di la déglu say am di jàmm di la seetaan ak lépp adversaire yooyu nga cité woon tey jii. est-ce que làmb boole na ak ñoom ba nga war a bëre ak ñoom. man instant bi nii may wax ak nii xam ma boole doon. ñan ay ñoomin soq yooyu ngay dégg parce que soq dañoo bokk maanaam combat mu bëree ma bëree. yaa ngi dégg dafa mbër mi tey bokk nañ jour man ak moom sixième combat la bëre ma bëri huitième combat mu daan ma daan bi may daan boo cité boobu xam nga la daan Tmax la daan Tmax man ma daan boo cité tey jour boobu jël bi fa gën a rafet maa ko daan parce que boo si dee moom ma jël ma koor ko ñaari barankaat daw moom ñaari aller retour mu ñëw ma talone ko jël bi gën a rëy si ko daan ñu yóbbu bi ñu ko top 5. yaa ngi may dégg mais mais xam nga tamit mbër jàppal ma jàpp ak mbër mi ku ma am ndey la ku ma amul ndey moom mooy ku ma am ndey man ma amul ndey moo tax baax baax ci moom lay ñëwee quoi après fa la jógee jox ko wulli wulli wulli man wulli ko ma koy jox bëgguma ko. muy mbër ndey mbër nga ne bëggoo ko pour lan. Eh, waaw mbër mbër comme ñëwee nga mbër wala bëri fekk ay ndaanaan bëri fekk ay sàccees bëri fekk ndaanaan bu ne. waaw boobu wuli mbër la woon boobu mbër la woon mais léegi comédien la comédien la léegi parce que mbër xam te ne la kooku ko bàyyi comédie am rek mu comédie noonu garaawul mais man su may jël damay jël mbër booy fere yaa xam ne kenn bëgg bëgg ma ne mbëru saf yi nga xam ne dama koy jël ñu naan ma carrément saa day dee xam nga gàkku dë ko xam ne ko xam saraan làmb ñu nañ saraan làmb gàkku dëw ku la. da bëgg tur wala da ngaa bëgg bës ba tax nga ne gàkku yow gàkku xam nga li mu fi def at ñi mu daana ñi bëreel. laay xam nga tey jii tey yow boo nee boo nee ay bëgg tur ak yii sama tur maa ko liggéeyal sama bopp kenn mayu ko maa imposé si làmb ji di bëre ak samay morom di leen defaral ba egsi fi ma egsi tey yii tey tey tey tey xam nga tey jii tey dëkkee zone B rek zone A ak zone B la rek parce que zone A mooy Dakar zone B mooy nii ñu li ngeen def ni dafa raar quoi waa SBT Média damay si gërëmaat de barke Serigne Ba Mbacke parce que day yéen nekk site bi njëkk a déplacé wu ñëw Rufisque jël si un grand champion bu dëkk fii bu bëri Baye Fall yéen a ko def. yaa ngi dégg éviter nañ ma nag partout mais yéen a def lu garaaw barke Serigne Ba Mbacke parce que li ngeen def nii nii dafa rëy rek xam nga loolu. gars yi Dakar yem rek di jël mbaru Dakar di leen interview seen biir ak da ngay wëndeelu ci biir gaañ mais doo yem benn côté rek naan moom dañoo nekk pour mbër yëpp xamewuñ genre xamewuñ pôle mbër fi nekkal léegi nag moo tax ma ne la tey seen site bii bàyyi barke Serigne Ba Mbacke dina yokk bi ngeen yëg de xam nga loolu est-ce que nga ne ñu ngi si biir dëkk bi mais xam nga affaire yi dafa am A ak zone B da il faut ngeen dama la koy xamal nee naa ma site bu ma gëmul su ma nekkee suba bon gëwuma la man loolaay dundee man barke Serigne Ba ma gëmul tey suba bu ma tàllal li ma ko la jàll gëwuma la yaa ngi ma dégg parce que li may am si làmb ji nekkul site moo ma koy jox yaa ngi may dégg kon nag yéen dama leen di rafetlu tamit xam nga ci wax ji nga wax rek moo tax ma jaaraat foofu quoi di expliqué ne SBT média moom xam nga waaw yéen moom xoolal bàyyi ca kaw ca kanam rek law ba faaw. léegi ñu ko xam say adversaire si làmb ndax da nga ne gàkku deux bu dul gàkku am na ñeneen ñu fi nekk ñoo xam ne tey ji war nga mën a laaleeg ñoom. waaw ñi ma war a mën a laaleel échantillon yi nii tey tey man. on le fou ne ne moom mooy doomu meer dëgër musóor Onde victoire bu rëy la jógee Ada Fass la daan ndaanaan la daan champion la daan waaye Onde lan yow xam fils musoor moom kese. Eh, waaye yow na ma dégg eh fils de mère dëgër ñun ñëpp suñu yaay ay dëgër musoor lañ yow ñun ñëpp suñu yaay ay dëgër musoor lañ nga ma fils de mère dëgër musoor yaa ñun ñëpp suñu yaay ay dëgër musoor lañ laa la wax ni gis nga làmb amul yooyu waaw boo fi teg Onde le fou da ngay de bàyyi ñëwal nga yi bëri ak parce que Onde le fou mënoo fay nekk si làmb nga te làmb instant bi boo si bëggee am xaalis da ngay bëree bëre mooy maye xaalis mais boo fu nekkee naan ay mer dëgër musóor di bëre sa gis combat nga bëre benn mu ngi dama commencé di xees. amatoo euh, ngi fooy na ma ko jël ay eh, on la fu wee peut être baaxal ma wax yow de man tàmbatuma loolu de barke man ñan wala ñan. ond la fu bu ko may ko ko. waaw yaa ngi may dégg ak euh, booy bi nekk. écurie Père Birahim bi eh, nekkoon nekkoon yëmal yëmal mbooloo nu mu tuddati Baye Ndiaga. Baye xam-xam ginnaaw yaay yaay mbëru defati yow. ñëwal ma dimbali la Baye Ndiaga la loxo instant bi nga ma dimbali la poli la war nga dugal ci làmb. non Baye est-ce que dina la jël. Baye Ndiaga Baye Ndiaga ko a ko Gàmmu ko mu jugee ñëw demaat ñu ko mu demaat ñu fayaat ko bu daaw lañ ko dóor mu daanu fee nga ma ay Baye Ndiaga nangam sàngam. waaw loolu da nga bëgg a jël Baye Ndiaga man ne ma fi neexal Baye Ndiaga Baye Ndiaga bëgg bëggul mu bàyyi maa koy may chance man dof maay may Baye Ndiaga chance Baye Ndiaga eh man maa ma ngis ngaas la waay yow ñu xaw ma dimbali moom moo indi woon indi Saloum 2 keroog Petit a jaay bisab suy rek dana bu rëy man damaa faale ponkal yow eh, Petit Niang eh doo ko defatee boo ko jëlee dinaa la dóor daan la amul ay yàgg-yàggal man leen moom xaw jaaxal si yow yow fi ñu toll nii yow ñi nga tëkku ñëpp dañ la ëpp doole ëpp la maas dàq la bëre ah alhamdulilah rabbil alamin man lii moom mooy neex xam nga lii mooy combat yi xam te nii moom la gaa ñi bëgg parce que dama bëgg am combat bi xam ko defati parce que Petit Niang boo ko xoolee xool ma xool ko moom ëpp dayoo mais est ce que moom ëpp doole. moo ëpp doole la dàq bëri. laa ilaha illallah ay waay bu la waxati loolu Baye Fall dugal dugal ay combat dugal samay combat Sénégal ay ñu xool bokkul mbëru benn foor la ma siiwal ko fii Sénégal yi xam ko Petit Niang mbëru benn foor nga mbër boo fetegul wet takk ko doo ko daan te ñun paye droit yi heure boo ñu takkee ñu booti la barke Sëriñ Ba Mbacke fas gaar la ak gaar normal seekar laa lay wax nag nante yi xam ne xam nañ làmb ñu ngi dégg li may wax nii nii nii nii petit ñaa mbër muy teg paye droit moo la mën mbër paye que boo duggee sa wet yi xam nga mooy loolu mais mbër paye droit yi force la fii la doole nekkee doole ñu gauche bëriwul de tànk ñu si gauche bëriwul footballeur yi la mais mbër yi ñëpp tànk pexe xoolee ay droite ay droite maanaam droite côté droite mopp doole bu duggee fii gaynde njaay lay ñibbee gaynde njaay lay ñibbee yëmbal Petit Niang yaa ngi may dégg boo ko ñemee jël ko amoo combat amoo dara dañ laa daan daaw yaa indi woon Saloum 2 di jéem a jaay dëna bu rek loxo yu rëy jël ko boo ko jëlee boo ko jëlee ma waay boo ko jëlee ma duma la daan la Petit Niang lan moom xaw a jaaxal maanaam yow lan nga singilee mbaru yëmbal yi lan nga leen singilee ba tax rek nga bëgg teg sa sées yëmbal lan la dangaa xam seen sarax wala non non man mbër yëmbal yi singile ma leen sax parce que soo xoolee tey dama dañoo dañoo dañoo xam nga tay jii man su ma yóbbee kii sama rakk la muy boy fay mii yaa ngi may dégg caméraman jël ko kii sama rakk la booy fay su ma ko yóbboo si làmb mbër bëreeg moom daan ko ma damay bëgg a jàpp mbër boo faj ko fu fayul kii bu dee dëgg la dafa indi Saloum 2 ma daan Saloum 2 kon moom na taxaw volontaire jël ko Petit Niang moomu parce que Petit Niang instant nii raw ma si làmb ëpp ay combat ëpp ay victoire kon léegi lan la na ko jël Petit Niang jël ko boo ko ñemee man faalewu ma la de faalewu ma dënn bu rëy loxo bu rëy. buñ jàppantee man ak yow dalantee man a yow kaŋ di nga xam te ne bàyyi bant ak fer bokkul de. waaw yéen ñi seetaan SBT ngeen dégg Petit Ba Fall li mu wax fi mu jaar fi mu déparé si làmb fi mu jugee si simple bi ba ni mu ñëwee si arène bi wax ñi mu jot daan ñi ko daan muy xale di daan def 10 combats lu jafe si génération am si deux defet soo xoolee ñi ko daan kenn kaa ngi fi bële kenn ki moom bàyyi na bëre sax su ma juumul bàyyi na bëre bu yàgg tey nag mu taxaw fi tëkku ay ndaanaan. te ñi wax noonu jaadu na loolu làmb boole na leen ndax bu nee Baye Ndiaga bu ne Petit Ba bu ne Petit ñaa ne Onde la Fou jaadu na waaye gàkku deux tamit gàkku mu ngi lay seetaan sa gàkku dinaa ko seet moom tamit wax si ci affaire bi ndax gàkku koo xam-xam ne ndaanaan la bëri naa ku ne Petit Baye Fall te laaj ñooñu te xale di ndaanaan maanaam Petit Baye Fall te ñu ñëwoon fii tënkee ñu seet si la ñu bëgg nga bëgg nga lancer message boo xam ne tey jii moom ngay lancer. devant monde public ñu xam Petit Baye Fall mooy kan ak ban jàppale nga ngay lancé pour gars yi jàppale si Petit Baye Fall. waaw balaa maa dugg foofu dama lay doon wax yéen ñaar adversaires yi xam te ne nii amaana sax yow da koo fàtte. muy ñaan Mor Kankan ak Boy Dakar. parce que nee na ñaari booy yooyu tamit saa mi toll nii ñoo jël làmb ji faram ko laay toog si. mën nga ñoo jox cër wala mënoo ko. yow mën nga maa déglu wala mënoo ko yow. parce que Petit Baye Fall Mor ndaanaan bu mel ni Mbour Kangkang nga naan dañ la ko jox yow ndaanaan bu mel ni Boy Dakar def 10 combats 10 victoire mu jël daan Tigo nga ko yow Petit Ba Fall yow la ngay xat wala. Ah, barke Serigne Ba olof booy dee si la xam nga luy problème bi champion daan la moo gën tokaar daan la te man ñooñu gëm naa ne maa leen mën déggulum la xanaa Boy Dakar su ma amee man ak moom ar bu ne ma dox si kawam. tax kal tax may rafaal yu métti ñamawul door boo xàccee day gëmm. Boy Dakar di mbëru mbopat comme di champion di waaye yow booy Dakar dafa bëriwul si àll fi ma bëriwul. dafa jël drapeau yi ma jëlul. waaye moom dem na drapeau chef de l'État. dem na drapeau chef de l'État. yow waay dem drapeau man man mii man mii di waroon dem drapeau chef man mii qualifié naa drapeau chef de a xaw ma nangam pour affaire boobu man maa qualifié woon drapeau chef de l'État. ma dégg mais drapeau chef yi maanaam tey tey man poids yi may war a bëri ji des fois sama poids da koy manqué wala du ko mat te man maa nekkul fii si ay régime gu métti googu di wàññi ak ay yooyu wala ñu war a yokk ñaan manqué nga 2 kilos affaire yi manqué man new ma si loolu de man kay li mat li ma dem pour ma wàññi poids damay dem bëri ñii yaa ngi dégg su ma duggee fii su ma fi bëree ba wax yow ah moo mun fi mu dugg moo leen mën waaye dafa booy affaire mag leen jaay booy dugg foofu daan leen dama bëgg di bëreeg samay morom te samay morom maanaam ñenn ñi dañ ma ëpp poids pour ma day laaj ay ma yokk ay 5 kilos ay 3 kilos nangam sàng te loolu su ma bëggee profité si diggante boobu yokk ko day laaj ay ngay naan yi nga xam te ne nii bàyyi après est ce a tenir dégg kon affaire ay drapeau sewel dem euh, drapeau nu mu tuddati sax CEDEAO ki kenn xamul non non non affaire bëri dóor la wax fii arène nationale laa la wax. mooy Dakar dafa daan ay ndaanaan parce que Tigo mi daan rek ndaanaan la. ah kon man ni ma daan ko du ñu ay ah, man man moom bokk ci ñi ma gis moom ay ndaanaan la daan. waa léegi kon man ni ma daan ko du ñu ay ndaanaan kon. ñi ma naan kon xoolal ay tokaar yi bon laa daan man garaawul. yaa ko wax de. ah ginnaaw booy Dakar ñi mu daan ma kon ñi daan kon yaa la ni ba Saloum nga doon naa naan si yéen kenn ko wax mu ngi nii. kon yow xanaa kon ñi la daan ay daan ah ñi daan ay daan ñi ma daan. ñi ma yow yow lamb moo tax ma tax lamb moo demee noonu rek mais sa xëy ko doon mu jëlee ji waa ko yow xam nga ko wax dañ laa suuxlu lañ ko wax dañ laa suuxlu barke Serigne baa mbaak fu mu génn ñoo ko delloo avance bi ki nga jël dalay daan dañ laa suxlu bu amee ci loolu kay kon na sant yàlla baax a baax rek. ma ne la booy Dakar laa la waxee booy Dakar yooyu yaa ngi may dégg nee na yow nga yaa ngi may dégg. 10 combats 10 victoires. 10 combats 10 victoires jëlal Petit Baye Fall yaa mu jooy loolu nga ñibbi ci kattanu yàlla ak mbaaxam yaa ngi ma dégg. wala kan. wala Mor Kangang yow wuli déw nee yaay booyam. ñëwal ma daan la pare wuli doo yow laay waxale tamit nga jël ma ma daan la boo leen yaa ngi moom su ma daanee Mor Kang pare ñëw si yow wuli waaw ngay dégg Petit Papa li wax nee na digganteem ak Boy Dakar digganteem ak waaw ñooñu nga fi ñëpp ay ndaanaan lañ ñooñu nga fi lim ñëpp ay ndaanaan lañ tey ñu Petit Papa nag balaa ñuy comme li ñu cërale woon si waxtu presque ñu si càppaandaw gi ñu bugg wax sa kàddu gu mujj nga tàggatoo après ñu am fu ñu jaar fii tuuti rek nga wax ak ñooñu waaw sa kàddu gu mujj fii waaw euh, Idi sama kàddu gu mujj gi mooy euh, di rafetlu invitation bi encore une fois xam nga parce que man ak mbëri nag bokkuñ de man maa jàng na maa dégg français bàyyi muy làkk tubaab parce que Serafal bàyyi bokk maa mbëri ñi tàllal micro ñu naan non je dors pas je kii naa non non non man je parle français waaw. mais nag euh, làkk boo nàmpal moom mënut a ñàkk nga def si faute quoi yaa ngi dégg mais yaa def certaines fautes yi xam te ne on peut le tolérer quoi mën nañu ko jégale coo jubul yaa ngi mooy dégg. waaw ñu ñëwaat tamit xam nga di remercier aussi euh, yenn waa SBT Média di leen santaat bu baax di leen gërëm dina wax ni carrément def ngeen lu rafet waaye barki Serigne Bamba xam nga lii moom xam nga waa Tëngéej ji ku ko seetaan di nga ko rafetlu waa jàmm ngeen si ka mbaaw ku ko seetaan di nga ko rafetlu parce que man ni ma lay wax dama mbëru dëkk dama mbëru euh, quartier mbëru gox laa mbëru dëkk parce que ma am si ñaari pàcc yu ma bokk sama côté bi Tëngéej la côté bi jàmm si ka yaa ngi may dégg kon nag waa Tëngéej dañ siy kontaan bu baax a baax waa jàpp nga Sicap Mbao bi xam ne fan laa juddoo sama maire yi ma ngénte suma grand yi suma booy yi yaa ngi dégg bàyyiwuma kenn dëggu porte bëgg ya xam nga jaay ko yi ay ñoom papa papa jaay ko yàpp papa maa ngi koy gërëm bu baax a baax moom it quoi parce que papa tamit xam nga nit ku baax la sama kaw dama pare dem ma jëndal ma xoolal damay am combat dem fa yaay lakk yàpp jox ma ma barkelu ñibbi ma ne ma mbër xoolal lu ma bëgg da koy gérer kon tamit ñooñu amu ma seen fay quoi ay grand Ali Diagne ak grand yi foofu xam nga ak booy dina wax ne carrément nag mafia yi foofu dafa war a dëgër quoi waa jàmm gën nañ bokk ci affaire di jàpp muy ñëw ak sama copain Ampel Ampel moom biir fora da jaay ay nag yooyu moom it maa ngi ko char baax a baax ak Arjel amu fayam moom it maa ko char jàmm gën na dëkk aussi tamit di ñëw Tëngéej di wax waa Tëngéej mention spéciale à ñoom amu seen fay parce que man maay Petit Baye maa nekk mbër bi nga xam te ne nii partout Tëngéej foo taxaw boo ne Petit Baye Fall ñu loolu lay sant yàlla la amul kenn kuy di nga Petit ko wax rek mu ne non Petit Baye Fall champion la kon loolu sant yàlla bu baax baax baax wax dëgg maa ngi di santaat bu baax baax di la gën a rawatina nag dara man gi may yeewoo sama booy ñu ngi fii xam naa ne salib bi nga fa jaar di ngeen fa di ngeen fa gis parce que booy yi ñoom dañuy sonn ci Petit Baye Fall barke Serigne Bamba fu ma xewlee dañuy ñëw taxaw xam nga koñ bi ak sama booy ba ma fi 224 bi ay ñoom it Assane ñoom it Babacar Fall ak sama njool xam nga booy yi tamit xam nga ko bay pass dañoo wax dañuy fanaan fii barke Serigne Ba maa ndax doo leen fanaan de non mbër dañuy fan naa ma leen hee dama leen ngeen ngeen tëdd ba suba ngeen ñëw ñu dem kon booy tax aw ma seen fay quoi di salaat aussi sama papa ak sama bi si kaw muy deev yaa ngi dégg ñun ñi dañuy sonn ci man quoi bu baax baax a baax baax ak sama benn grand bi xam ne moom it mu ngi daw pour ñu fekkee émission bi nii nii nii mais xaw ma danañu fekk xaw ma nañu fekk quoi muy Ousmane Ndiaye këram a ngi nii ak jabaram Mari Ndiaye xam nga ak seen mafia jigéen ñi xam nga ak mafia xam nga man dama bëri mafia quoi yaa ngi dégg aussi tamit xam nga euh, kii suma rakk la muy Boy Faye xam nga maa ngi bu baax a baax di ko gërëm moom it xam nga parce que tamit tewaayam rafet na yaa ngi dégg waaw. tewaayam rafet na tànk waaw sama tànk quoi ay ñoom it euh, Petit Baye Fall numéro 2 ak Barbar xam man euh, écrit bi bëri na quoi mais ñii su may rakk lañ su may rakk bopp lañ yaa ngi dégg moom booy fay mii. yaa ngi dégg ñii nii nii su may rakki bopp la ñii Boy Faye euh, Petit Baye Fall numéro 2 ak Barbar ñooñu sama mafia lañ yaa ngi dégg bu dul làmb sax dañuy nekk quoi parce que soo xoolee man su may génne pour doxi seen biir laa ñëw ñu toog waxtaan kon ñii su may rakk lañ bu dul làmb bu dul dara ñoom su may rakk lañ quoi waaw di gërëmatam waa koñ bi fi ma dëkk nii koñ Petit Baye Fall fii man la Cheikh Petit Baye Fall mi si kaw étage si sama ndongo yi ñu ngi ci biti quoi yaa am a xam yaa ngi dégg sant maire yi koñ bi yi bàyyiwuma kenn su ma limee damay juum maa ngi sant ñëpp aussi kat di santaat aussi ku si mel nii Malick Thiombane ak monsieur Konaté Ablaye Ndong xam nga Lamp Fall gars yi bàyyiwuma kenn ah. di gërëm aussi euh, ñi nga xam te ne mooy bonne volonté yi nekk si koñ bi ñi nga xam te ne suñu amee bis dañ si jàpp bu baax a baax waaw ñu ngi sant aussi euh, monsieur Dame Touré responsable politique fii si man tamit ku ku ñeme sonn si dëkk bi la Darahmane fii ku si ñeme sonn la. ku ñemee sonn si nit la muy monsieur Dame Touré moom xam nga di ko ñaanal tamit objectif am si Darou Rahmane na ko yàlla may doole ak mébét ku koy di seetaan aussi beneen grand muy euh, euh, kii euh, comment dirais François mouvement Macher waaw grand François Babacar Touré mouvement bu baax di ko gërëm parce que tamit grand bi tamit moom it dëkk Darou Rahmane fii nekk responsable politique fii si Darou Rahmane xam nga nekk tamit grand bi xam te ne tamit ku am yëg si jeunes la. ku si am euh, soxla wala am bagage bi xam te ne maanaam boo ko bu ko yëgee da si taxaw bu baax a baax a baax baax jàpp ci na jàpp ci côté bu ne kon nag ñooñu amul seen fay quoi di la seen mébét si Darou Rahmane yal na leen yàlla may doole ñu jàppale wax dëgg yàlla bu baax a baax wax suñu émi bis ñoo si xam ne turuma seen tur yi waaw comme tamit fi ñu jaar tamit Mor Sita Mor parce que boo déggee Mor Sita di ko gërëm ak euh, Dunaay suma grand suma lépp moom it xam bis bisam la mu ngi dëkk fii moom itam ma ko fàttee wax émission bi moo tax xamul mais Dunaay suma lépp la mooy man maay moom ak xalil xalil bu borom ndigal Ibrahima xalilullaahi waaw moom Baye Fall ndigal sama xam naa ne su ma ko waxoon tamit moom dina teew émission bi quoi mais xam nga xel day fatu ñu ñëpp maa ngi leen di loolu ma fi petit Baye Fall ay vieux maane bàyyi ma ko moom it vieux ah, mu ngi ci biir ak Tamsir Ndiaye Diawo moom it mu ngi ci biir parce que ñoo ñooy staff petit Baye bi gën a jege xam nga instant Petit Baye bi gën a jege ñooñu la ñu la am combat ñuy daw di dem carte suñu ak yooyu ay Ousmane Ndiaye Diawo Vieux xam nga Dunaay Ibrahima Khalilullahi Nder ñooñu noonu xam nga ñoo yor staff bi gën a jege bi gën a sësi ak Pap Pap Sarr su ma ko fàtte woon deedee Pap Sarr kooku maanaam boo gisee stade Petit Baye taxaw moom mooy taxaw ak côté mooy lonko sengoor yi mooy sotti butéel yi moom mooy sang moom mooy def nii lépp moom la Pap moom parce que tamit moom du tey quoi démb la xam nga wolof nee rek lu yàgg rek dëgg la su ma déggee ma moom yàgg na quoi depuis bi may gën a nekk booy xam ñu nekk booy maa ngi moom yëpp ko dund ba tey yàlla boole ñu ñu dem arène ñu ngi ñaan yàlla nag c'est-à-dire dugg suñu diggante ñu ànd ma nag dem ba ma nekk roi des arènes dem ba tuddante ay doom du si sama déggee nag moom dem ba ma defar ko li nga xam te ne moom foogee ko woon ci man ci làmb parce que sama xel mu ngi ci moom bu baax a baax a baax a baax a baax mais nag essentiel làmb làmb fayagul quoi bu làmb fayee waaw coo jibul quoi parce que kooku sama jóola sama nit la quoi di ko ñaanal nag bu baax Pape Sarr moom moom boobu quoi moom xam nga nit ku doy daal moo nekk noonu ba ñuy ànd ba léegi maag moom barke Serigne Ba Mbacke dafa mën a comprendre situation dañuy bëri sax sax su ma bëggoon yëkkati dara ko jox ma non non non garaaw parce que xam na ni mu demee xam xam na ne xaalis amu fi te man Petit Baye Fall ku ma xam-xam la wax li si biir xam nga ko financé xaalis rek man garaaw man xam la ma ñor victoire bi moo ma ñor bu ñëwee Petit Baye Fall sa mërëbee boo ko joxoon si combat bi daan boo ko joxewul ñu daan la dama koy joxe pour daan dafa koy jaral man noonu laa mel quoi ma tax instant bi ma téye daray làmb làmb may ma nag dara mais nag sant yàlla rek làmb dafa may may suba quoi parce que ndaw laa gëm naa ko bëgg naa ko quoi kon ñi ma la wax ne maa sant bu baax a baax a baax et di gërëm. dëgg la Petit Baye Fall li nga wax tamit dëgg la ñi nga sant nga ñi la jàppale ñëpp gërëm nga ñëpp waaye dafa am ñaar ñu ma yóbbante nuyoo si yow muy Fat Faye sama seexu bopp kooku Fat Faye doomu mer Ndioufa su suma seex la suma lépp la at Youssou mooy booy bi nga waxtaanal si WhatsApp bi ñaar ñoo ñeneen soo eggee nuñ Petit Baye Fall bu baax baax muy Fat Faye ak Youssou Fat Faye suma seexu bopp la suma lépp la kooku suma jigéen la suma lépp la yaayam suma yaay la suma lépp la ñaar ñooñu loo leen di wax. waaw ndeysaan yow da ñëw sama kër mbokk men Diouf sama bàjjen la yaa ngi ma dégg kook suma bàjjen la di ko ñaan yàlla yàlla may ko fanu gudd ak wér gu yaram yàlla dëgëral ay cëram xam nga dimbali ko ci tanal saafaraal ko ci eh, ci lam nekk waaw may ko wér bu baax a baax a baax a baax parce que tamit xam nga waaw man xaw ma ko bu baax quoi ma ko moom quoi xam naa ne jigéen ju mën góor la. waaw jigéen ju mën góor la quoi met boobu di ko ñaanal nag bu baax a baax a baax dañoo ci soxna am yitte si doomu aadama ku am yëg-yëg si doomu adama ku fonk nit ku bëgg nit mooy soxna Fatou moom ngay gis noonu faa yaay faal. parce que xam nga bu ñu nee bàyyi faal wala yaay faal du kese de sol ay caay ju rek sol garam bu bu rëy loolu signiful dara symbole la rek nag ko xam nga symbole la parce que tam loo gis daa am mu baaxoo loolu symbole la mais ci xol bi la parce que maam Cheikh Fall xajul si jëmm doomu adama ci xol la xaj yaa ngi may kon colin gi ak du foofu de xam nga yi fan la ci biir xol bi yaa ngi dégg kon faa yaay Fall la quoi moom ñu ngi koy santaat bu baax a baax a baax di ko ñaanal saa borom di ko nag Père Baye Fall mu ngi lay nuyu quoi bu bëgg làmb ki nga xam ne léppam làmb la. dégg ko keroog maa nga am jëkkër mbër waaye mbaa du fiir xam mooy loolu <laughs> mais Fa amal jàmm yow barke Sëriñ sama jigéenu bopp la maa ko bëggal sama bopp kooku moom sama ni sama seex la sama lépp ko nuyu bu baax tamit di ko ziar bu baax a baax tey ñu indi loon jëlee loon fii ci Tëngéej seet si fi ndaanaan Petit Baye Fall seen émission seeti mbër tey Petit Baye Fall lañ ñëwoon seet si di xale di yaakaar di ndaanaan ñu des tuuti ñu bàyyi ko ñu dem xooli ñi nga xam ne mooy ay mbokkam ay am du jàmmam waaw dig daje nag si ay xale ay ndanaan nee na yéen mbër yëpp xaar leen ma émission seeti mbër mu ngi ñëw de xamewul mbër mu ndaw at mbër mu mag xamewul reporter at supporter xamewul amateur at communautaire xarleen ko yen ñëpp ñëpp ñëpp maa ngi ñëw seen kaw ñu mu nag sëñ Saliou sëñ Saliou Baye Sall moo def lii sëñ Saliou moom ma defal Baye moom sëñ Saliou moo def lii Baye Niass bii waaw kooku mu ngi nii kookoy sëñ Saliou nekk jàmm mu ngi nii moo def lii moom sëñ Saliou di ko ñaanal bu baax taw feex ak tay siir kookoy moom Saliou di ko ziar bu baax a baax di ko jox wàccu waayam ndax tiset bu rafet bu ma sol Baye Niass bu rafet bu ma sol moom la moom sëñ Saliou di ko ñaanal loxo bi gën a wér ci barke alxuraan di ko ziar bu baax a baax di bëggee nag suma waa mafia bàyyiwuma kenn képp kuy safa SBT Média rek bëggee naa la rawatina mécanicien deux roues yi nag su ma nee mécanicien deux roues yi rek dama jël benn nuyoo bi teg ko si loxo Cheikh Mbacke muy borom Z yi borom routier jël ñaareel bi teg ko si Mbisaan Faye muy borom Liberté borom Temax yi ñoom ñaar rek nuyu naa leen bu baax nuyu nag waa Kër baay électronique ñoom kenn la si man waaw waa Kër Baye électronique nuy naa leen bu baax a baax ziar naa leen jox laa leen seen wàccuwaay bu wér a wér dig daje beneen yoon aman bëri waaw daaw li ma bëggoon euh, tënk rek tëjee ko tëjee ko émission bi quoi mooy si koñ bi fii dañu fay am benn euh, benn benn pro bu ñuy wax Paka Boy Paka Boy Paka Boy ñun ñun mbëru Darou Rahmane yi xam la mbëri rek waa Darou Rahmane la waa Darou Rahmane total l'ensemble amuñu fayam parce que nit ki xam te ne nii sa lu mu yëg rek taxaw si mooy Paka booy parce que tamit ngay gisee nii day def ay social yu garaaw waay man sama idole la quoi ci social. damay ñaan yàlla suba yàlla may ma xéwal ba may def ni moom parce que dam dafa joxe un bon exemple si fii dëkkam man loolu gëm dama bëgg gis nga nit bu la yàlla may teraanga fa nga dëkk il faut nga jëlaat loolu defaat ko ci ñoom tamit armas mooy Paka Boy li muy def noonu quoi Paka Boy yow mention spéciale à yow duñ sonn si wax si yow barke Serigne Ba noonu si jàppee te du bii kese ah, ay combat yi combat combat day jàpp te man waxuma la man kese parce koor gi koor gi ngi ñëw day jënd ay suukar koor day jënd ay tonni dañ la koy yóbbu kër nii te buñ ko yóbbu dañ ko yóbbu bëccëg de guddi lañ koy yóbbu lu garaaw laa wax nii guddi lañ lay fëgg ngay nelaw ñu fëgg la dugal la saako ceeb sa kër te kenn du ko yëg Massamba Mademba xam nga lu social bu garaaw la kon Paka Boy ñu ngi lay ñaanal yow Baye loo mën ren déwén yàlla nga mën lu ko ëpp yàlla yàlla fay soxal bu rafet bàyyi la sa sago nag barke Sëriñ Ba Mbàkke parce que góor yàlla nga Baye Fall ah, de Petit Baye Fall moom maa ngi lay santaat bu baax di la waaw Poti wax na lu am solo kooku tamit Paco booy ñu ko nuyu moom tam baax di ko ziar di ko jox wa di nuyu nag kullum kuy safoo SBT Média waaw rawatina nag samay jigéenu bopp Fat Faye nuyu naa la bu baax a baax ko Yaay Fall la moo jiite dofu Bambey maa ngi nuyu bu baax di ko ziar di ko jox wàccu waa mook caat di wax yàlla mi borom jàmm sa comme jàmmal nga am jàmm yàlla na yàlla defal jàmm ndax garabu jàmm ndoxu jàmm boo ko arrosé doyut kon yàlla na yàlla defal jàmm defal ñu taw fi wax dig daje beneen émission ak beneen champion fii si SBT Média rek lay doon kese keneen bokkul